salaamaaleykum mbokk internet internetu dakarnet.com kon ni nga defee saa su nekk di dalal ndaanaane ak artistes yi nekk fii ah, tey nag dama am plaisir ah, di invité ah, sama tooma Euh, ñu gën ko xam ci béy di nekk série Mariama tey moom nañu dalal te yaakaar naa ne tamit aussi euh, dina am lu bari loo xam ne dinañ euh, ko waxtaan ci carrière parce que yéen mbokk internet yi yéen ko doon laaj lu ñu def rek lu dul jox ko kàddu yi mu duroog mbokk internet yi koy seetaan après dugg moom ci waxtaan Béri maa ngi leen di di la ziar. maa ngi lay fay sama turando Abdou. Hmm. maa nuyu bu baax di nuyu internautes yi comme tu di hmm. di kontaan bu baax ci dalal bi ñu dalal. parce que hmm. aussi. yow mu baax nga quoi. te lii yàgg nañ ko bëgg mais tey la ko yàlla dogal. Mm-hmm. donc day am solo. Mm-hmm. ñu teew fii waxtaanee lu bëri comme tu dis. waaw alors mi ngi noonu <laughs> kooku mooy Beydi yaakaar naa ni ak ah, kenn dootu leen ko présenté ndax xàmmee ngeen ko aussi ah, li njëkk a dem rek mooy Beydi gars ñu ngi gis ngay gisee ah, série Mariama mu am solo trop mais est ce que mën nga ñëw dikkal tuuti sa jaar-jaar ak euh, série nan la la dikkee. Euh, cinéma cinéma moom mën naa ne en quelque sorte dafa bokk ci sama destin ah. Mhm. parce que ku ma xam man ñu ci bëri ñu ma gisee ci écran yi daf leen jaaxal. Mhm. parce que nekkuma woon moom ni nekkoon na sama bëgg-bëgg de trop tonte bëggoon naa di seetaan ay film mhm. seetaan si série yi. mais quant à ko moom bokkul woon ci samay ambition. yaakaaroon ni euh, dina nekk acteur quoi. masuma yaakaar dinaa doon acteur mais mm-hmm. li yàlla tudd kenn mënu ci dara. Mm-hmm. donc euh, toog naa beneen instant rek euh, gars yi tout le temps dañ lay wax yow bëggoo def mannequinat. Mm-hmm. bëggoo def publicité. dañ la koy wax tout le temps. Ah, mais avant boobu daan nañ la proposer loolu. waaw yooyu lañ ma doon proposer mais mosuma mhm. intéressé parce que maa ngi woon ci jàng bi. te mhm. ñi ma xam baax xam nañ ni man jàng bi dama ci mës a am Pastef. Mhm. dama ci farlu waaw dama koy jox ak xam donc euh, jàng naa ba sori. donc boo xëyee xëy cinéma dal sa kaw. day bett ñu bëri mais li ko indi nag mooy sama benn xarit. moom dafa am xaritam. bu yëngu ci yooyu waaw. déjà. Mhm. moo ko proposé mu postel ko euh, benn casting. Mhm. léegi bi mu posté casting bi ma gis ko. Mhm. ma ne ko Sénégal léegi ñëpp bëgg a joué quoi. ndeysaan mu reetaan mu ne ma pourtant yow de man dama la doon gis ci lii ma ne ko man sama liggéey sax mayu ma ma def. ah mais da nga ragaloon wala. <coughs> ragaluma mais. Mhm. bon bokkul woon ci samay bëgg-bëgg. ma nekk naa nit koo xam lu ma bëgg moom dama ciy dem ba jeex. waaw dëgg la ah, mais. ma ne mhm. ko non lii moom aw ma temps bi parce que ma liggéey dafa chargé woon. c'est ça donc doo am temps def cinéma te gisoon naa ni c'était pas possible. Mhm. mu ne ma a ah, kon baax na. en tout cas wax naa ko beneen booy beneen copain Alsane que euh, bi may nuyu de passage xam naa dina seetaan émission bi. mu ne wax naa ko Alsane moom dina dem. ma ne ko waa ah, baax na. la veille mu woowaat ma moom xam naa moom la yàlla jaarale affaire boobu mu insister mhm. ma ne ko bon dinaa dem mais juste pour xool ba xam dinañ ma jël wala dinañ ma jël défi mhm. boobu laa doon kii xool ba xam man mun naa ko sa bopp quoi waaw ma peese <laughs> ma <laughs> sama bopp parce que comme am mhm. naa temps week la ma ne ko ñu dem li yàlla di def dañu dem euh, waa ji gis ma profil bi intéressé ko mais bi nga demee gis affaire yi tàkk nit ñi dina seetaan tiito. déjà bi ma ñëwee nit ñi dañu bëri. <laughs> waaw Sénégal fii gis nga casting yi. casting yi ñu bëri yow plus mhm, ku nekk bëgg man ko naan sama ne koy fii xam nga kenn ni ñu jël moom. <laughs> Eh. beneen booy bi tamit wax ko la même chose mais bi ñu duggee. Mhm. man nekk naa koo xam ne ragaluma public quoi. xaw naa sox tuuti quand même. Ah, d'accord ragaluma public. Mhm. mu ne ñu nañ ko defal nañu interpréter. improviser. loolu la ñuy wax. man ak booy bi ñu taxaw benn deux minutes ma expliqué ko lii la ñuy def lii. ñu dóor ko comme xamante nañ xam nga dafa fluide. d' accord mun naa yees waa ji apprécié. d' ci jour boobu la wax sax ni yéen njël naa leen. ci jour boobu noonu. waaye mu laaj ma sama la joxoon rôle tel ndax di nga ko mën. ma ne ko yaakaar naa ko de instant yi mu mënaguma dara. mais ah, man daal ah. ragaluma. <coughs> mais mais est ce que est ce que euh, mu xam sa enfance da ko woon fooyee ay théâtre sama enfance nag. fooyewuma euh, <coughs> théâtre quand même. comme daan ko foowantu nii comme comme comme nu ko. gaa théâtre xale yi ah papa yaay waaw comme yooyu <laughs> def nañ ko. <laughs> ndeysaan moo tax man Sénégal sànq mhm. maa ngi la koy wax Sénégal. Mhm. ñi nekk ci baalu tous bi joué wuñ sax ñooy acteurs yu mag yi. ñooy acteurs yu mag yi ñëpp ay acteurs lañ dañu mhm. ay loolu ñëpp jaar nañ ci. mais aussi dañuy gis que ni euh, sens la quoi parce que affaire yi des fois. Euh, suñu borom moo la fay euh, moo la fay jaarale mais aussi tamit yow tamit euh, boo nekkee nit koo xam ne da nga am ambition gëm li ngay def tamit da ngay neex a jàppale. exactement waaw chance mu ngi ci moom. Mm-hmm. chance mu ngi ci parce que di nga gis koo xamante ni nii je peux dire dafay def casting tout le temps. Mm-hmm. duñ ko jël. dëgg la yow mi nga xam ne nii loolu bokk woon ci say ambition. Mm-hmm. yàlla xëy teg ko sa kanam donc chance mu ngi ci. xam nga nit bëgg na dara fekk gënul ci moom. nit tamit bëgg dara fekk loolu la yàlla tudd ni loolu la war a def. donc quelque part dama naan destin aussi def ci am. daf ci am parce que mhm. man maa ngi lay wax sànq di la sama cursus dama ko jàng ba mu normal. Mhm. donc nekkul loo xam dama ci teel a dugg. man ah, da nga doon jàng. dem doon jàng waaye man def naa formation ba pare. Mhm. donc jàng naa avant may dugg cinéma sax commencé naa di liggéey ndànk-ndànk. mais mais mais sa liggéey nag nga mun a booleeg tournage ak nu mu méttee. métti ah, métti trop. metti mm-hmm. na trop mais cinéma dem naa bu bëgg ko. Mm-hmm. jouer dafay nekk loom il faut nga def ko pour xam. mais mais après am nga ay mais après am nga ay euh, retour quoi maanaam ay messages yu négatif euh, waru woon waru woon euh, suivre woon def lii. dafa woon dafa woon a suivre jàngam affaire yooyu noonu. am na ñoo xam ni je peux ñi ma mm-hmm. xamul. surtout. ñi ma xamul carrément xam nga ni dina la gis nii rek te du la xam. d'accord parce que boo nekkee li ma la wax nii nga jàng normal. di mhm. di di bokk ci premier classe bi. Ah. di avancé oui man dama mm. daan jàng normal man je suis ingénieur en industrie alimentaire. ah may wax ak yow nii kon kon jàmbaar waaw donc mhm. jàng naa. Mhm. dañ lay xaare feneen. d'accord te comme milieu bi yeggagul fenn fii. boo ci duggee rek dañ naan da ngay tardeel sa bopp. Euh, alors que ñoom dañuy fàtte li ñuy wax passion. Mhm. passion dina la dugal ci dara ça n'a rien à ak euh, li nga xamante ni da nga koy def en tant que tel pour am ci combo. Mhm. dimbali ko wala pour dimbali sa askan autrement. Mhm. donc ñun cinéma dañ dem ba mu nekk passion ci ñun. ñu koy dund aussi am yeneen nekk ci ñi koy jëmale kanam. ci côté bi nga xamante ni day jëmale aussi suñu réew kanam. d'accord donc yëg-yëg boobu moo ñu motiver davantage. fi ko yàlla jaarale projet bi nga xamante ni moom laa njëkk a joué may nuyu le producteur muy Madiane Touré. Mhm. di jeune comme ñun mais ku ambitieux. projet bi mu ngi tudd l' impossible est possible. daf doon mhm. def la promotion de l' entrepreneuriat des jeunes. Mhm. donc dafa ma neexoon man dama bëgg loolu. Euh, li promouvoir la jeunesse. d'accord parce que réew mi mënul dem sans la jeunesse. dëgg mu nekkoon concept bu am solo. moo ma motiver. ma yaakaar ni ci lancé boobu laay continuer te wàcceguma ko aussi. Mhm. parce que boo xoolee bëy di. nekk na ndaw mais terewul mu ci yoonam. mu ngi liggéey mhm. caaxaanewul avenir mhm. am. Euh, en quelque sorte loolu moo ma motivé moo dugg ci cinéma quoi ci cinéma d' accord ah, dogguma la mais aussi ñu gis euh, série Mariama euh, ñu gis ni dafa am ay ponkal yi fa nekk ku ci mel ni Thierno Diallo. comprendre nga léegi yow nga nekk booy yaa xam naa xale nga yaa ngi doog a yaa ngi doog a ah, maam série mm-hmm. comprendre nga mm-hmm. léegi est-ce que na ñoo xam tey jii nan nga def ba intégré ah, ci série bi yes Dakar Mariama mm-hmm. sama intégration Mariama moom yàlla moo ko tudd naka la demee dama bëgg nga leeral ah, demee seetaan waaye ni mu demee euh, benn jour ànd naa ak sama rakk bu ndaw bi Medoun euh, ñuy dox le promoteur ki moom Yes Dakar. Mhm. moom laa dajeel mu ne ma mhm, booy yoo xamee naa la. mu ne xàmmee naa la xàmmee naa la mu ne ma gis naa seen produit bi mais nice na mu apprécier. Mhm. xaw a rectifier ni ma yow nag bëgg dinañ liggéey. ah mu ne dinañ liggéey. ma dinañ liggéey moom dafa nekk koo xam te ne dafa bëgg. jàppale nit mu jëm ci kanam. moom loolu la ko yàlla bindee. te macha allah mu ngi koy réussir parce que bari na fi ñu si ñoom moo leen teg loxo. waaw donc mu ne ma dinañ liggéey te di nga dem fu sori. Mhm. loolu la ma wax. mais mais mais mais te euh, premier tournage naka la la dikkee. sama premier tournage. naka la comme ça nga jékki-jékki ñu la kaay def lii nga mu war a nekk mu war a nekk première fois nga war a def sa tournage. naka la la dikkee. non la veille da ngay nekk ci texte yi di jàng di jàngaan. <laughs> Ah, ok di tëdd di xalaat doo yaakaar ni xam nga euh. ñi ko ñi ko tàmm def ñoom dinañ xam ni affaire bi du këru texte ñëw récité la. Mhm, waaw mhm. léegi di nga xam mais yow da ngay focaliser wu ci texte yi nekk ci miroir bi di xool ces mhm. daf lay dafay hypnotiser quoi dafay mm-hmm. téye ba tellement que yow. Mm-hmm. da yaakaar ne lii moom. Mm-hmm. challenge la quoi. d' accord sa premier séquence bi nga njëkk a tourné je me rappelle dama ko doon répéter tout le temps. chaque jour boo boo première leçon bi nga am C1. <laughs> waaw day mooy gën a mokk yeneen yëpp. donc ma ñëw. bi ma tourné ba pare le gars yi mu baax na. ah mu ne baax na ko jëlaat beneen ah baax na ma ni ko noonu lii mu mënul baax. bés mu baax bu ni ma baax na booy bu ñu sonal su baaxul woon da koy dóoraat da nga koy dóoraat ndeysaan ndimbalu suñu la demee ah yi mhm. aussi nga ñëw ñu ne baaxul di la corriger au fur et à mesure mhm. mais ma suma ma ba génn kontaan toujours li ma def dem mu koy xeeb danga koy xeeb waaye ça veut dire que des na lu bëri bëri mais ndeysaan mhm. ak gars yu mel ni jibi bi nekk yees Dakar ñoom dañ lay def nii dañ jàppale quoi donc solo dafa am solo ndeysaan mi ngi noonu moo ne dafa am solo fu mu jaar eh, mais aussi tamit bëgg ñoo xam séeri bi mhm. nga am ci say say naataango ku ci mel duuru sama xarit moom aussi tamit euh, manqué nduyu bu baax euh, temps yi passé ñu ngi doon def ay émission comprendre nga yow nga ñëw andi sa facette bopp comprendre nga nekk fa avocat série bi xam nga di incarner benn affaire mhm. xam nga pour mën ko jox euh, sénégalais yi loolu loolu loolu naka nga koy dundee ci ci ci euh, ci série bi. waaw c'est vrai parce que rôle moom ku nekk ak rôle am li mu laaj. waaw mm-hmm. yaa ngi tudd Doudou maa ngi koy nuyu bu baax. moom aussi mm-hmm. sama best bro la di nuyu papaam. ndeysaan mm-hmm. tamit suñu suñu gaayen la. bu baax yes Dakar. ci li nga ma laaj noonu. dafa nekk lu am solo acteur bi moom rôle am lu mu laaj loolu lay joxe. Mhm. par exemple booy ci école bi boo leen gisee am na nu ñu mel. Mhm. di nga gis gars yi yenn saa yi xam nga tox cigarette fii. Mhm. xam nga takk jaaro waaw bandi bandi mais loolu thème bi moo ko laaj. ak seen rôle. du bi d'accord waaw bi moo koy laaj nga gis benn bayit yi. avocat lañ ko def c'est normal. muy euh, sol ay ensemble costume. waaw di ko actionné. di ko bu takk cravate xam nga. bëgg sañse quoi parce que avocat yi mënuñu la avocat nga. waaw nga am xaalis d'accord nga certes il faut être modeste. Hmm, mais solo présentable dafa bokk ci nit. waaye hmm, hmm. te avocat bi moom avocat yi fii noonu la ñu mel. donc pour que role bi gën a crédible. nit ñi gën a nekk dans dans dans dans ton il faut que côté boobu nga matale ko. ni ngay ni naan lu di. wuyoo da koy nuru nuroo uh-huh, personnage bi pour mën a ko mën a capter mm-hmm. ñi lay seetaan mm-hmm. loolu moo tax ñu lu mu laaj daal ñu ko ci def daal nañ daal ndeysaan <laughs> mais mais mi ngi noonu nee na jëm nañ ah, euh, aussi tamit ah, succès bi nan la demee yaa ngi jël yaa jot ay message di di di di di ñu lay ñoo xam ne mosoo leen xam sa na ñu ngi lay woo succès boobu noonu na nga ko dundee waaye bon dëgg la mm-hmm. parce que c'est vrai que lu bëri changé na nag parce que mhm. di nga romb ci mbedd mi nit ñi di la woo. intercepté la fii. Mhm. jël sa numéro on t'appelle de partout. Mhm. ñii di apprécier ñii di critiquer. mais lépp ça veut dire que bàyyi nañ la xel te. Euh, avant da nga doon romb kenn du la xool. xam nga duñ la message duñ la woo. duñ la follow ci réseaux sociaux yi donc euh, yóbbu nañu feneen ni ñu koy defee ni ñu daan dundee moom la ñuy dundee. noonu la ñuy dundee. ku mhm. ñëw ñu kafforee Sénégal loolu moo fi am. Mhm. te yàlla def na ñun dañ bëgg doomu aadama ñun dañ bëgg nit man dama bëgg nit. ndeysaan dëgg la dama bëgg nit te mun naa def ak ñëpp. Mhm. damay maslaa ak ñëpp ak noo ñëwee ah. noo ñëwee damay maslaa ak ñoom donc nice ah. amaguñ ci problème <laughs> jusque là. ok comme ni ko waxee nee na nice amaguñ ci problème euh, di ñaan tamit suñu boroom Euh, ndaw nga euh, suñu borom tegal euh, teg loxo ci ci yow parce que gis nañ ni bëgg nga ko pare xam nga mi ngi noonu bu ñu jigee foofu rek dañuy duggaat ci beneen question foofu moom faaw ma dugg ci. <laughs> waaw muy yaag meer ñoñoo lan la. meer bi waaw. <laughs> non non foofu faaw dégg parce que. <laughs> tegal meer na ree bu ma ko déggee damay ree. damay ah. meer bu baax ngi noonu nag. ku baax koo xamante ni xol bi dara nekku ci mm-hmm. nitu kese nitu kese nitu ajana la mm-hmm. parce que yéene na ñëpp lu mm-hmm. baax ndeysaan te man yàlla daf daf ma gis rek bëggal ma boppam te man daf ma yàgg di daaj. ah mère bi du ma ko xool te reetaan. dafa neex quoi non début bi dafa naan am problème joué ak moom parce que damay ngay ree ndeysaan ñu Abdelaziz joué te nga bàyyi sa reetaan yi. <laughs> dafa am ful ko quoi. après moom da koy jox moom moom mais la. daanaan la daanaan ni ma koy li ñuy ni ma koy tegal yëpp xam nga mu koy accepté. Mhm. xam nga ku tiim sa yaay naan ko ngay faran. waaw. rôle boobu doo ko jox n'importe qui musuel <laughs> la dëgg euh. la mais da nga koy gis daf koy daf koy joué da koy joué gis nañ ko day joxe séquence bi moom ba da lay yóbbaale xam nga ñun ñii di doog a door nañ soxla loolu da lay may doole ah, aussi tamit am te benn benn benn série bu may seetaan mhm. loolu dama koy seetaan ba léegi daf may defre ree benn séquence ah, waaw benn séquence ah. mooy aussi bi ngay tàggu sa sa sa jabar ne ko maa ngi voyagé comprendre nga mhm. léegi bi génn Euh, alors di eh, di di topp ndaw si. Mhm. comprendre nga. Mhm. mais bi nga a euh, jaay bi ne la noo kii euh, nga ne ko an a jabar mu ne la dafa génn nga ne ko an sama yaay. waaw mu dafa génn mais automatiquement taloo sa jabar parce que yaa ngi tal mère yi. parce que da parce que di ko doxaan waaye mën a mhm. ma dafa sori. dafa wuy téléphone génn. d'accord ma kon warul sori na ma soriwul comme mhm. soriwul nag. Mhm. maire bi miinu fi kenn automatiquement ma ne kon mu nga. kër paa waaw mu nga kër paa def addaay paa ah wala moo gën a rey foofu. Ah. ñu ngi ne fëgg paa bi. fëgg ko paa génn na la mais. yow la kañ nga ne ko non. neef bi nga fàtt te réew bi <laughs> ne ko non amul leen lu may wax neef bi nga fat laa bëgg a génn. bi nga fat waaw foofu nag dérapé naa tuuti mais loolu la dama mer xam nga boo meree moom. Mhm. war nga am sago mais yenn saa yi ma nga fat bëgg mu génn. mu ne ah, xaaral ah, fois c'est day noo xam ne. des fois mu nga ci meer quoi ci ci ci ci ci tournage bi. dama mer naturellement da ngay mer. léegi nag boo meree di nga joxe ba joxe loo xamante ne binduñu ko mais. bu mhm. bu naturelé. on laisse passer. dañuy bàyyi bu jàll. parce que mhm. boobu yaa ngi ci biir jeu bi. yaa ngi ci biir da nga dalay emporter ba beneen nit nga. beneen nit nga voilà donc loolu mooy neexal sax. Hmm. sa mais mais mais pourquoi nga tëbal maire bi ne ko non maire amul da ngay génn. nga dàq ko waaw nga dàq ko waaw neexul tamit. bay di mënul nekk notable ci koñ bi nekk. Hmm, avocat waaw <laughs> waaw am na lu muy incarné ci koñ bi. ndeysaan yaayam hmm. ñëw mais loolu Sénégal fii du lu ndaw de. d' accord mais dafa am solo lu ndaw li ma gëm existé wul. xam nga maa ngi dem kër paa bi te maire bi nekku fi. te nekk moo la woon ni leen saa yi bul dégg tël rek. na xam nga foo nga xalaat. Mm. loolu la ñuy jàngale foofu. ndeysaan am na solo mais bu doon réalité la neexul ci xool. message bu am solo la. xam nga bu doon réalité la. mbay mm. di li mu def ñu bëri dinañ def loolu wala pire. waaw ah. sa yaay bu leen mu ngi ci koñ bi di def safaan. waaw non neexul mais mbay di dafa teeyul. moo tax mu réagir noonu mm-hmm. mais réaction bu doon mm-hmm. dëggantaan mm-hmm. non réaction bu naturelle la te quatre vingt dix pour cent dañuy def pire ndeysaan <laughs> te aussi tamit bi <laughs> ah, nga mais dàq bi ci kër gi man en tant que Abdou Aziz loolu bu doon man la du ma ko def doo ko def mais kii bi moom moo ko moom moo ko ah, laaj Beydi comme dérapé na nekkatul nit Beydi boo xoolee yaay ji liggéeyoon na ko au début yaay ji d'accord jabar ji dañ ko liggéey donc moom léegi dafay agir dafay agir du demee xelam d' accord yu ci bëri xolam lay jiital. d' accord ak bëgg-bëggam te il est un mhm. fa gëm boppam li mu def lay li mu gëm lay def. d' accord mais génnee sa yaay jëkkër. dama amoon problème joué ko le producteur m'a dit booy dóoral ma lii. ma dóoral ma rek <laughs> ah kon des fois da nga daan dóor. ma ne mu ne noonu dóoral. Mhm. si mais mais loolu dafa métti tamit dama bëgg. des fois mais après commentaire nga ko déggee. dafa xas. dañ lay xas des fois nga xas. dañ lay jooy séquence man mi sax bu ma ko seetaanee daf ma kii quoi. dafa metti boo bëggee say xam Sénégal dañu bëgg suñu yaay yi. ndeysaan gisee mais tamit gàddu kii nga yenu affaire yi taxaw ci tali bi. non c'était amoon ah, noonu dafa garaaw ndeysaan. dafa garaaw loolu. loolu mhm. man daf ma naqari séquence boobu moo ma gën a metti kii ma joué. bëggu ma di mhm. joué genre yooyu. ndeysaan doo bëgg di ko joué mais comme da ngay yeete. da ngay yeete am ma solo def bay di ñu bëri gis naa dañ naan béy di muy mujj du baax. Mhm. lu mën a nekk la. dëgg la mais man man mi sax moo baax faa parce que moom fii lu boo boo yëgee ci taaw war nga mën a xam. Ah, ah, ah. nan la war a mun a mujjee. ñu bëri dañ koy parce que yaay dafa fort te fii ñun dañ fonk waajur dañ fonk mag. Mhm. voilà donc boo toroxalee mag rek ak maire bi ñi ko maire ñëpp da ngay gis que ne. Mhm. bëy di warul def lii donte maire bi def na lii. def na lii waaw yaay yaay la. bu tax tamit yow la doon yow la doon ah. topp topp topp sa jawar. mais bi ngay ñëwee rek. Eh. waa alors mi ngi noonu aussi ah, <laughs> tey dama amoon ah, mbégte di la dalal parce que mun naa ni du ma tay di ko wax nan def reportage. dajeeg moom jël ko boobu sax duggagu ci série euh, Mariama mm-hmm. mais en fait moom tamit dañ koy gërëm parce que euh, bu ko neexoon di ñu jaay affaire mais bu ñu ko wooyee euh, tag rek dafa na amul benn problème incha allah xool boo ko bëggee nga def ko kon yaakaar naa loolu yombul mais Bady est-ce mun na nañoo xam ba xam publicité yi mi ngi ñëw. <coughs> waaw mu ngi tane ah. Mm. ak ak <laughs> ak tamit ñu lay proposé tamit ci yeneen série yi ba xam yaa ngi koy. waaw proposition yi moom du ñàkk. ñu mhm. ñuy proposer ay séries. Mhm. ay publicité mais lu mu ci doon aussi boo ci gisul sa bopp comme je te dis man damay liggéey. donc sama temps aussi bu ma koy perdre da koy jar. d'accord am ci loo xamante ni nii moom bëgg a defal nit ki wala bëgg lu neex nit ki aussi du tax nga gaañ sa bopp. dañ naan sama bopp ma la gënal du bañ naa la am na ñu ñuy proposé. Mhm. yeneen série am na yeneen série yoom ñu ñu ci woo dañuy dem. am na yoom génnagul. c'est en cours am na ay publicité bon projet kaay jàpp ci. moom daal ñi ñu ngi ñu def suñu mhm. petit bonhomme de chemin ndànk ndànk. ndeysaan sàkku ñaan. incha <laughs> yàlla baax na incha allah ndaw moom bu gëmee boppam rek ah, amul lu munul am ci àdduna. Mhm. Ah, alxor mi ngi noonu. Euh, li ñu amoon ci ay minutes jeex na man sax émission bi ni mu daggee nii euh, mu neexuma quoi parce que euh, waxtaan nañ neex na. lu ñu defee lu jox la nga tàggatoog mbokk internet yi la doon seetaan. ak sa fans waaye kontaan loolu nag parce que mm-hmm. lii yombul quoi ñu may la chance nga wax ak ñi nga xam ñu ngi lay déglu donte léegi réseaux sociaux yi tas na. Mm-hmm. mais lii dafa nekk loolu moo gën a moom la ñuy gën a seetaan. Mm-hmm. waa yow sa émission maa ngi lay aussi di la remercier bu baax. yow laay commencé. Mm-hmm. parce que bu la neexoon acteurs yi bëri nañ nga. Mm-hmm. bàyyi ma fi woo keneen. donte du ma ci perte. mais aussi nii moo a gënal. toog ak yow nga nekk nit ku baax di remercier ñëpp. Sénégal àdduna fu nekk la ñu jotee appel. extérieur fépp di nuyu suñu famille un peu partout dans le monde. di leen wax ni Beydi moom moo leen gën a sopp gis nañu follow yi message yi. Mm-hmm. yéen a ngi ñuy suivre partout di aimer li ñuy def. Mm-hmm. critique yi aussi bu leen jàpp ne dañ ko jàppee lu négatif parce que moo ñuy jëmale kanam. donc critique dafa bokk ci dafa bokk ci nit. dañ ko soxla loo leen gis neexu leen rek. promotion la sax. Mm-hmm. voilà non loo leen gis sax neexu leen da ngeen koy wax ñun ñu defaruwaat surtout ñun ñuy doog a door. loolu moo ñuy jëmale kanam. Mhm. donc ñu ngi leen sant di leen a di leen wax ngeen xaar deuxième saison. Mariama moo gën a garaaw. ah ngeen gis beneen bi mais gars yi naan est-ce que yéen saison bi dina dàq euh, euh, deuxième saison bi. dina ko dàq saison bi dañ ko kii nii. ah mais bii saf na de. bii bii bële di ñëw xaar leen ko. Hmm, mi ngi noonu kon <laughs> nee na beneen incha allah bu ñëwee moom mooy gën a neex. waaw ah, alors mi ngi noonu ah, mbokk internet ah, Dakar net ñu safoo di ñu seetaan saa su nekk seen émission daan naa tey maa lañ ko doon wax ñu amoon plaisir vraiment. di euh, di dalal béy di moom aussi ni mu ko waxee rek noonu lay demee ah, borom baax la di ko ñaanal euh, suñu borom lépp loo xam ne bëgg na ko ci carrière am na ko suñu borom defal ci barke naa euh, Seydina Mohamed aussi di gërëm sama réalisateur yi ku ci mel nii Yaas. moom it maa ngi koy gërëm bu baax a baax di gërëm tamit Dieye sàmm di leen wax dig daje ak keneen incha allah jaa ngeen